Salam alaikum. Boki info donc euh, bienvenue sur l'émission émission Artist. artiste sommes au niveau de géejawaay au niveau de Bailai. nous ngi fini j au pour cette semaine, nous ndaanaan boo présenté au niveau du euh, hip hop galsen muy IS 814 IS 814 salam alaikum. Yeah, salam salam. ngi leen de nuyu yéen ñëpp euh, di nuyu nous info maa ngi leen di jaajëfal si émission bi ak invitation bi yeah. Euh, donc Iz merci si accueil bi donc ñu ngi lay remercier bu baax cette disponibilité donc son première question pour ñu dugg si waxtaan bi en résumé tey boo mu doon résumer kan mooy Ismaila Talla Iz 814. yeah dara ismaël Talla en résumé moi ben, nit bu jël def déclinaison turam mooy qui jël turam Ismaïla à travers is mu de Ismaïla mu créé ci is 814 mooy numéro maison bi ma dëkk villa numéro 814 donc ma nekk ku juddoo yaroo màggee Géejawaay donc sama histoire yëpp li ko créé c'est à travers fii ni bàyyi Laay quartier bi waxee naan Nimzaat Njaareem Limaamu Laay quartier église Kip Koko donc loolu la nekk artiste xam nga nekk bit beatmaker di defar ay beat di produire ay film film bu si ne bu si mel ni idole di defar ay son publicité di defar yooyu quoi euh, wa is tey gis nañ nga yor ñaari casquette au niveau du hip hop Galsen muy casquette rappeur bi ak casquette beatmaker bi donc ñaar yoy bo mu don defar la euh, synthèse bi loo ci wax yee déjà dara man pour man c'est du ñaari casquette c'est-à-dire ben affaire la buy dem de pair quoi ça va de concert parce que dafa melni ngay boy rap boy defar ay beat di rap kep kuy defar beat si sa xel même bo même bo guenewul ay son rap ya ngi rap parce que c'est imaginer la technique qui va avec le son imaginer xam nga le texte qui va avec imaginer l'ambiance xam nga le sentiment qu'il y a dans le son quoi ça peut être mélancolique ça peut être ben coup de colère ça peut être une expression de liberté un désir d'exprimer ben une certaine liberté pour moi, c'est un ensemble pour les deux vont de concert quoi pour le beatmaker c'est des rappeurs à part entière peut-être nous nous ko def nous ñu bañ ñu décider nous wala ñu bañ place après ça dépendra c'est le choix de l'artiste c'est lui qui choisit Ok, donc Is, euh, on, on voit que aussi tu es trop impliqué si affaire ou film euh, de créer une musique de film avec affaire yooyu d'où est venu relation avec avec euh, film et affaire il quoi. hier déjà de passage je, je, fais un, big up à déjà Even Prod ñoom ñi nga xamante ne film pour moi qui, mais c'est parti de Malal quoi c'était Ibu Ibou Gay le réalisateur de de Idole. Je bëggoon créer musique musique film étant donné que le gisoon que Malal était très nécessaire même dans l'élaboration vu son engagement et tout je veux quelqu'un pour defar ça. après si la ñu présenté ma defar ay affaire après affaire bi neex ko depuis boobu ba léegi ñu am une véritable connexion avec une bonne énergie dans le travail pour man loolu la loolu moy film loolu si non la commencé si musique film après di avancer di def ay délire di dem donc à chaque saison may jema exprimer ben couleur musicale si affaire yi donc je pense que loolu quoi. wa is aussi gis nañ ngay dam par rapport ak sa carrière on voit que ne tu défends trop ce ce ce identité géejawaay

quartier bi nga comme comme sport donc c'est des expressions de quartier quartier des fois comme comme sauf que ñun sommes c'est le côté c'est le côté intelligent c'est le côté de tel tel tel a comprendre c'est le côté intelligent c'est le côté de wax aussi gars l'union li ñu bëggul wax aussi ñun nouvelle koy wax di génne affaire ak yëpp man quartier fii laa juddoo yaro fi maagee su ma ko représente des gens de géejawaay ont cotisé des impôts def ay affaire ba ay école mën fi am yaa comprendre école mën fi am gars yi di gérer ay affaire di ma donc école 19 la jangé, Pikine Est école publique lycée Limamou bo université Cheikh job Diop donc c'est normal géejaay le plus quoi ok donc c'est bon donc on a vu que is yaa ngi évoluer nekk ci make bi ñu gën la si xam ngay defar ay it di defar ay it yoo xam ne génn na fi en plus nga ñëw dugg ci rab bi avec benn benn produit boo xam ne ñu ñu ngi koy wax mbeddu crasse yi balaa mbeddu crasse autant pour moi donc ci boobu nga gagné si ay trophée yu bari donc trophée yooyu lan la la def ak euh, ban ban ban ban effet la def si yow quoi yeah, yeah, yeah. trophée c'est une bonne chose c'est la sanction d'un travail bien fait mais pour moi les plus nit d'afrique le trophée trophée c'est comme c'est comme nit jox la une couronne te ko sa bopp c'est pas c'est pas c'est pas la couronne qui va faire le roi c'est li nekk ci sa intellectuellement lan représente représenter d'af lan ngay def en tant que nid parce que am projet nice am lan ngay <laughs> être humain nit wàcc si suuf dara yonent dañ ko fekk da ngay la donc cette simplicité cette cette attitude d'avoir ce xam ce sentiment d'avoir une attitude terre à terre xam nga wàccee sa pas wàccee sa bopp dans le sens de te sous-estimer mais wàccee sa bopp dans le sens ça parce que ça te humain en fait ça te rend yow gënoo nit yi quoi gënoo nit yi mais nit yi gënuñu la parce que ku comprendre que ni yaa ngi ci suuf moo nekk ci kaw moo la gën mooy kooku ce n'est plus un individu c'est un animal parce que parce que qu'est-ce qui te fait indi parce que animal rek mooy ëppalee nit beneen an mooy ëppalee beneen animal beneen affaire jaay ko ko gaynde day ëppalee doole beneen animal mu romb mu lekk ko and it's like si xel parce que amul xel si physique rek la ko mën woné et ñun su fekkee yow si sa xel da nga japp ne ya gën ki moy bo leen nekkoon si ala da nga koy lekk et sat sat sat sat ça te rend abruti ça te rend con ça te rend bizarre and it's like à chaque fois rek moy li wax trophée lu ma munte am trophée yépp fi ak ça me rend humain rek dina ma wàccee waat si suuf c'est c'est bien parce que ça me permet de refaire beaucoup plus de défaire lu ëpp solo lu ma defoon quoi et c'est c'est pas c'est pas le plus important en matière d'art art amul prix journalisme bind bien affaire génne article quel que soit lu de la si à jox amul prix parce que inspiration la inspiration amul prix quel mënu la ne inspiration bi ça coûte tel parce que ki la koy jox ba mu la koy jox laaju la dara xam nga la moo am prix meew jënd meew si boutique waa ji d'affaires ko est à ah, j'ai dépensé tel pour jënd niambi bi pour d'une demi-vache très relève, tatatat, bon, moi, je vais devant le mot coup 25 000 d'investissement, donc, mais vous n'êtes que d'un mois, 5 000, sous ma 30 paquet, sous ma 6 paquet ou 5 000, vous n'êtes que 30 000, donc, j'aurai un bénéfice de 5 000. Et c'est comme, que l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, de l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, vous m'excuserez du terme, je m'en fous à la base. Donc, euh, Internet Guédia Info Yenengis, euh, qui prend avec beaucoup de philosophie et de modestie, trophée Nyukodjok, malgré que la compétition avait météo, il y avait beaucoup de gens qui ont été Mais dans mon euh, produit, il y a balambédocratie. donc c'est autre chose donc produit boobu nan nga ko quoi parce qu'on a vu musicalement lyriquement les pédales motax tax mu am yenn trophée yi rafle tout donc nan nga ko joobee ci ban état d'esprit nga ko déjà état d'esprit c'était entre sama samagale sama galé studio wara a jang université ko wara a concentré licence droit gis né que et puis la sincérité qu'il y a entre toi et ta personne you know parce que sincérité bu gëna graw garaaw gars ñu ngi wax sincérité entre ñaari nit yu loolu garaawul sincérité yow ak sa nit moo gën a c'est beaucoup plus fort parce que quand te mens moo gën a metti que boo fenee benn nit soo fenee sa bopp si biir parce que as dëgg baa mu doon wax loo daw daw loo daw ba laaxatu ñëpp genre munoo laaxatu sa bopp parce que saa yow wéetee yaa ngi wéet ak sa bopp c'est like ça pour moi c'est c'est fort comme philosophie et imagine nga dàqatu si lëndëm ñin ñi kenn gisu la mais yaa ngi gis sa bopp a ngi comprendre et et d'où d'où d'où la logique des trois tribunaux tribunal bu tribunal étatique et tribunal de la conscience lors daw daw munoo daw sa conscience you know c'est que quand tu dors que tu te libères de ça mais quand tu te réveilles et que boum maa accès ak conscience and it's like lol. Un philosophe projet on l'a travaillé sur logique yoyou quoi logique nan La sincère ak sama personne nan la tout ce que je dis dans le projet moi, il le nan lay sama grand ibadu bi comment il comprend sama sound bugg ko sama wa gala nan lañ comprendre que jang ba ëpp issu sound même si c'est pas vrai c'est c'est c'est absolument faux lolu jang ba ëppul issu sound c'est faux c'est totalement faux et que ñu ñeneen ak ñeneen you know like lolu toutes ces choses là font que projet bi bama koy bind on fait que quand quand j'écrivais le projet j'étais à chaud quoi bind et puis bind luma yek essayer d'être xam moi quoi dans ma peau expliquer peut-être dina am ben boy quand je parle de yama gëna no quand j'essaie d'imiter ben grand frère bu nan la demal nga jangi ngay nan da ngay rap you know amo yoyu aussi du ñàkk yaaxul am kenn ko jógee France yaagul ben rappeur la mu ne ma il a vécu le même truc avec son père donc si c'était pas ouais tu vois les affaire boobu ngay dund et que yooyu yëpp da nga daj nga dem mari aujourd'hui le problème des téléphones ñëpp a ko xam téléphone ñaata nit ñoy dawal té sen téléphone ba ray nit ba pare su police ñoy ñu wàcce sen téléphone et d'où d'où d'où le manque de sincérité avec ta personne parce que t'avais ton téléphone et tu vas jamais assumer mais en en interne toi tu assumes yaa ngi comprendre as naaysul nga dem si ay ceinture gudd ay xaru parce que tu tolo na ci instant mu bëggon xaru après je me suis dit le fait que énergie négative pour bëgg xaru nekk si yow pourquoi doo ko def sound après ma def ko sound je je l'ai même pas écrit j'ai sorti le micro dugal ko ay radio bi affaire yooyu tout tout ça si ambiance yooyu laa ko doon joobee quoi ambiance avec ma personne sincérité bi affaire yooyu parce que pour man lu ëpp solo mooy yow ak sa nit nan ngeen mel balaa yow ngay jéem a xool ñeneen ñi nan lañ mel you know yow yow ñaar nga quoi ñun ñun nous sommes double mooy yow am si yow am nga beneen nit bu nekk si yow ay kii ak yeneen nit je pense que c'est logique pour la ronde gën et que beaucoup de choses se sont tournées sur ma personne à part ay mim bo xamné je fais dans l'écriture une focalisation xam nga externe carrément une focalisation externe focalisation zéro autant pour moi di wax affaire yeen say mu ni ni xam quoi. Ah, ok merci Is donc Is mooñ doon tojal noonu balaa mbeddocratie bi donc Is si kaw loolu mbeddocratie bi génn balaa mbeddocratie bi du mois di évoluer donc ñu gis nga indiwaat beneen tube muy noos mu defaat effet defaat boom quoi parce que nit ñu dañ doon wax Is est-ce que balaa mbeddocratie bi tand ko <laughs> mais on a vu que ne confirmé nga ko si si si noos bi quoi donc noos aussi mu doon benn benn tube boo xam ne ça tout touché tout le monde si soit non noos muy sound la bo xamante dama damone quoi et que damé euh dama damone et je pense que c'était sama ben xarit Pape il m'a porté sur son dos moo ma indi mo studio pour mon dougal son bi que je l'avais écrit quand j'étais j'avais la jambe cassée mais non suñ koy suñ koy dougal je parle beaucoup plus ak yenn boo yu nekk ci géejawaay am ay complexe boo yu nekk si ay banlieue am ay complexe boo yu nekk si yenn milieu di développer yenn complexe yi surtout milieu défavorisé tu vois beaucoup de gens qui développent des complexes du que c'est grand la tay benn grand journaliste mun na am complexe ne xam na Is rappeur su ak Aliou Sall wala su ak Macky alors que mun na nekk sax Macky day Is et que munoon na ko ne xam na ko mu ne ko pourtant sama fans la mu jékki-jékki woo ko am lu mu changé seen donc c'est des complexes boo tu si ghetto boy sax nga jang, tu penses y a gën ñi jàngul alors que c'est pas vrai l'école ne te rend pas l'école ça t'abrutit soo defee noonu il y a beaucoup de gens qui développent énormément de complexes et que son boobu c'était une manière aussi de voir niti gëm len sen bob. pas gëm sa bob si lek, wala si nan, wala lepp lo nek, mais gëm sa bob par rapport à li ngay représenter li ce que nga nekk c'est indépendant de ta volonté mais aduna bi mokoy par exemple nga yew say parents yoruñu mais du yow ngay lek ngeen di lek sombi sa papa lolu la am sois fier de ça yow nga yew nek journaliste bo traité wul ak ci ben organe bu mag bu melni France 24 wala tel mais xébé xeebee way info do musa jot ci bu mag bi parce que do musa a say performance yu lay permettre nga dépasser niveau bobu da ngay nek ak ben artiste si cogne ngeen di développer ay affaire mu leen le gars il a tout le potentiel qu'il faut ngeen di ànd mais da nga koy xeeb jël beneen artiste yëkkati ko ci kaw xam nga loolu lu koy indi des fois am na ay nit yoo xam ne lu leen jege dañ koy xeeb man affaire yi man gëwuma ay proverbe nul ne prophète ce soir lépp question de mentalité la c'est une question de changer sa mentalité et une manière de voir le monde et une manière de se dire que man ghetto dama fier fierté boy boy boy ghetto là quoi banlieue là judo fierté ou changer affaire comprendre nga affaire faut que mu changer parce que suñ ko deful les gosses qui vont revenir ils n'auront pas de référence té suñu amul référence yow sa dom bu am ay référence bandi ay bonne day jaay bonne mu bandi ya comprendre am référence ñenen ak ñenen ñi fi nek ñoko mais tey koo si gis géejuwaay kii dafa xeeb kii kii xeeb keneen parcelle kii xeeb kii kii xeeb Pikine kii xeeb ginnaaw raay kii xeeb kii kii xeeb keneen et c'est pas le plus important le plus important c'est-à-dire d'être soli on est pauvre mais soyons solidaires dans la pauvre pourquoi riche solidaire bu ñu riche pourquoi pauvre yi solidaire ñu il faut être solidaire pour sortir de la pauvreté da nga mës a gis pouvre bu téye moom kese génn si am na borom xam-xam yëpp dañu wax ni que nit bu demee moom nit boo yorul dara di demee sa bopp boo feebaree kan moo la yëkkati Et tout ça, tu ne peux pas vivre avec ça. Donc, ce sont ces choses-là qui font que si je développe des noces, des affaires, c'est pour gum gum bunga, yow nga gëm quoi, nga nga nek dal président, bagné président, politique, bagné politique, ko un nek ci aduna. Xam nga lan ngay def hein? Ah? Ancien spermatozoïde, futur cadavre. Bo déwé, ñi ñi sandi la pel, nga paresi. Benen génération ñew. Ñi dé do len mus ñi ñu jëk dé do len musa gën. and loolu mooy noos philosophie bi loolu la waaw mu nekkoon benn fort message de is is donc is évolué nga dem ñëw donc ñu gis ne si damm boobu ngay wax sax si laay ñëw si nga programme woon def sa concert. donc euh, far yàlla damm boobu kii tey programmé waat nga pour def concert bi léegi ñu ñëw carrément si événement boobu événement boobu lan moo ko waral ak lan ngay xaar ci événement boobu. yeah déjà événement bi lu ko waral moy artiste bu nek boy def ay mbir bëgg nga aussi di di def ay prestation c'est une manière ce public ñeu sétane ci la en concert album bi bu fekkee kiffé won nañ ko une manière de voir c'est-à-dire nan ngay jëmmalé moy jox jëm sa projet quoi nan ngay jëmmalé sa projet sur scène ban spectacle la artiste bi joxe au delà da nek studio da dem di def ay interview de tel di wu ci ay clip nan ngay joxe lo xamantene live la en live artiste bi mo taxaw yow lan ngay joxe yaa ngi comprendre ñu bari Sénégal dañ ko jappé ci ay solo def ñetti yéré quatre yéré vingt yéré ci jouru concert alors que le plus important c'est de donner un bon spectacle parce que c'est ça qui permet nit ñi di la bouquer di la yóbbu ngay ñëw parce que nit ñi d'habitude amna ñuy nekk ci public bi ñoo la ëpp yéré té benn lañ sol ñëw yow li nga leen moy le potentiel artistique que tu as et c'est ça qu'ils veulent découvrir Tu ngi C'est pour man veux nga war a travailler pour que bu lay si ñu ah bañ fa demee naay sonn dinañ on conserve pour moi c'est une c'est une manière de fidéliser déjà à qui am ba pare et puis àndaat ak faire pour avancer dans le futur et puis pour Wanleni, on a une prestation à donner on a un spectacle à offrir en son et en lumière avec toute l'équipe de 814 bien sûr nous sommes ligués pour avancer quoi concert boobu donc yaa si organisation on sait que organisé un spectacle dafa donc par rapport à l'organisation bi fan ngeen si toll fan ngeen yem ak public bi fi ñëw lan la mëna a xaar is offrir ko si concert déjà il y a un comité chargé d'organiser le concert je pense que Bala muy exi dinañ def ay affaires parce que le comité bi ñoom ñoo ci gën a mun a wax lii la def la a def la def parce que nous ñooy gisee ni lii war nañ ko def tay mun la né concert bi dinañ def tel tel tel mais tout restera ci ay promesses fii ak comité d'organisation bi néwuñu ah concert concert bi dinañ choisir ça on va on va faire ça on va faire ça on va faire ça je pense que moi aussi je suis un produit je suis un produit du, du label 814 comprendre donc les plumes aussi c'est le produit d'un consensus quoi c'est le fruit d'un consensus d'un c'est d'accord parce que ici aussi personne n'a le monopole du vrai et puis nous ne dañuy pas si plumes lu ñuy def dëppoo si Lolo waral sax réunion bi ni dans quelques minutes donc pour wax gars, si d'accord, je sais qu'on va faire d'autres sorties pour parler de l'organisation. On doit avoir ça, on va avoir ça. Mais je sais que lepp lu ci plus pour que, que, ce, que, pour que le concert soit mené à bien. Quoi. Non, yow en tant qu'artiste, yow euh, ban jeexital ngay ngay xaar ci concert bi ce but si concert bi lan la en tant qu'artiste, artiste bi nga xamné bu weesoo label 814 yow en tant qu'artiste, artiste mi nga xamné ne nek sur scène. waaw peut-être gars yi dinañ si am ñom gars ñoo ci am jeexintalu ñin ñi ñëw mu fess mais man je me dis lan la ci am moy nan lay jouer et que sama biir parce que ñu bari Sénégal légui dañuy concert pour ñit ñi tatchu et c'est très dangereux Amna ay nit yuy kiffé sa son te munu te en fait son bi mu ngi leen di dugg instant bobu dañuy bëgg déglu rek quoi yaa comprendre des fois nit gis nga son bu gën a neex sax mooy nit ki déglu ba mënatul def dara bu bu fin son bi jeexee mu tàcc quoi vraiment jam na ko parce que tey mim réew boo ko joué di nga gis booy dinañ la bëgg woy comme yow mais am na ñu bëri il préfère réécouter quoi pour li ñu comprendre woon en fait ñu comprendre ko yaa ngi comprendre donc concert bu may joué c'est man ak sam bopp inside parce que artiste inside est-ce que concert bi ne bu gars yi tàccoo ma ne ku xeebul sa nos gars yi ne ko dàqu la nos ñëw nii nii non dama bëgg nga gis ne le gars genre il était content quoi man mo ñëw aussi sama moment de contentement et sama énergie positive bob pour man mom le public bi di fil du ñëw ay affaire na wétan wala politique président bi wax nga né waay non c'est ñëw enjoy affaire yi xam nga son bi dal taf taf am ko def ben affaire nga xamné li vraiment c'est bien calculé nice na et puis c'est vraiment symétrique dans dans une logique mais pas nga ñëw woy samay son woy samay son woy samay son après quoi tu reviens juste pour rechanter mes sons sinon tu peux rester dans ta chambre mais énergie quoi les énergie et que j'aime bien les sons ou freestyle 5 j'aime bien jouer ça sur scène parce que si je joue, je suis tellement dedans ak sama que je ne vois plus le public artistes yi dinañ dem ba instant si concert une public parce que sont instant ils sont artistes bu public on nga nekk benn nit mais tu sens qu'il est c'est l'artiste soo demee bay gis public bi tu n'es plus l'artiste tu es cette personne qui veut nit ñi xam ne indi na ay nit quoi et moi je suis pas dans cette logique gars yi ñëw je pense que ceux qui ont kiffé le projet vraiment ils vont venir ils vont venir ils vont suivre te yàlla daf ma may ma am ay fans yoo xamante ne ñëpp la ay à ay boy yoo xamante ne xamuñu dara ni leen société bi jàpp ne xamuñu dara bon ñoo xamante ne ñu ngi si ay ngandi place mais bu ñu dégluwaatee projet bi il se rend compte que ay nit kese lañ genre ñëpp laa dajale quoi ay nit yoo xamante ne am nañ ay classe sociale yu sori am ñoo xamante ne ay nit kii classe sociale yu moyen kii mais ñoom ñëpp jour concert dañuy daje te doo xàmmee kii ak kële parce que ñoom ñëpp bu ñu ñëwee xam nañ ni philosophie artiste bi lii la ak lii ak lii amul jaayante garaaw amul dara bu fekkoon concert u jaay garaaw dam fële laa koy tëggee Radisson Blu def ko ay table dîner gars yi ñëw ma jël sama micro dafay affaire yi nice ku nekk dem quoi. Donc c'est ça, ils vous donnent rendez-vous le, le 30 mars hein, ici au Jivop. Donc euh, ñëpp nañ fi dajé donc dina am spectacle bu grandiose avec Ismaël 814. Donc il sa las ce lan la lan ngay terminer par rapport ak euh, élection yi ñu jógee ak ban conseil ngay jox euh, la jeunesse de Guédiawaye ak du Sénégal en particulier oui, mais du Sénégal en général et de Guédiawaye en particulier parce que aussi Guédiawaye c'est Sénégal quoi il faut gars yi di quoi ce que je dis moi, déjà le plus important gars yi une élection mais ñun suñu élection le 30 le 30 mars ticket yu indiqué di kii mooy carte de vote Et les élection le 30 mars la vraie élection il n'y y aura pas de suffrage confisqué Nous, leen nous, yaa ngi sànni xeer rek. je blague je blague je blague donc ñëw leen yéen ñëpp. donc ñëw leen yéen ñëpp si concert bi bégee leen ñëw leen ñu bégee def une ambiance de dingue def ko si ay sons yu am yu am doole am lépp et que pour man loolu la conseil pour jeunesse bi mooy bu leen xeeb seen nos gëm leen seen bopp c'est que ça loolu rek moo leen mën a sauver. gëm sa bopp boo amee zéro mun nga am un mais boo amee milliard da ngay <laughs> waacaar quand tu es au sommet tu peux faire que redescendre boo nekkee ci suuf munoo waacaar da ngay yëg rek. <laughs> Eh, merci donc wa Guédiawaye info ñu ngi leen di gërëm si seen teewaay si seen attention bi ngeen jox tey ñu ngi woon fii au niveau de Guédiawaye ji bopp xam nga seet si benn benn benn benn benn ndaanaan boo xam ne Guédiawaye kenn du ko présenté di gëm Guédiawaye donc muy def spectacle am le 30 mars fii au ji bopp di leen jox rendez-vous di ko remercier bu baax Is ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax. ça montre que ne gëm nga géejawaay quoi te ñun nous sommes pour pour pour luy avancer le géejawaay merci maa lay remercier bu ba donc c' est ça c' était Mbaye Prési au niveau de waay info di leen jox rendez-vous boobu beneen yoon xooli artiste restez connecté